وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا أحمد بن محمد قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم bokk yi ñu leen di nuyu di jiital ci nuyu bi alxalifatul aam li taaifatil muridiya مولانا الشيخ محمد المنتقى ابن الشيخ محمد البصير حفظه الله ورعاه أكيده إمام الحاج محمد الفاضل ابن الشيخ عبد القادر إمام الأئمة حفظه الله ورعاه وبجميع إخوتي والأخوات المنسوبين للحضرة الخديمية ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu taxiyat al islaam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismi jaamihi al akbar li cheikh al qadim masalikul jinaan ci njiitul alhaaji mbakki yu fay teewal ko cheikh mouhamadul muntaqa ñu ngi leen di nuyu di leen sargal jiital ci nuyoo beeg sargal ci jiite kuréel bii te jiite ko ci muy alxaaji Muxtaar Diouf xafisahullahu wa raha ak mboolem ñi mu àndal kuréel bi di sëriñ bi ci fàttali lu jara fàttaliku te loolu moo di julli géej julli géej gi nag buñ koy fàttaliku dana nelaw neex lool waaye dana niru it lu metti lool bu nu xamee lan mooy julli ak fan la tollu woon Mawlana Cheikhul Khadim nga xam ni bu mu néeg rafetee jullee tax te yéen a ngi wax jàkkee Masaalikul Jinaan ji gën rafet ci biir Afrique tax allahu akbar assalaamu aleykum moo waraleen ci Amadou Bamba di julli fii ndax loolu du xaru aha kay niru na ko waaye Cheikh Al Khadim ñàkk bakkanam ci ndigalul yàlla jaral na ko lu ne kon bu nu koy fàttaliku ndax ponk boobu taxoon sëriñ bi taxaw fii daana ko ñimeetee woyafal bu nu ko woyafalee lii ñuy woote réyul ci nun bu nu woyafalee julli li muy tekki lii ñuy woote réyul ci nun kon sëriñ bi li mu def réyul kon li mu def réyul balaa réy ci nun day fekk julli réy ci nun ponk julli màgg ci nun nu wane ni li nu fonkoon ci ko lool Serigne Touba moo nu ko gën a bëgg kon Serigne Touba mooy ki nga xam ni ndigalal yàlla ndigalal yonent bi moo boppam moo ko gënal i bokkam moo ak sant billahi inni min nabi abadan xillun waxibun wa maa yabahu abahu al mustafa xayrul wara xaadi fi kulli sayin wa maa abahu sëriñ day waxal boppam te daa waat te bu waatul woon sax mu gëm ay waxam nee na waat naa ci yàlla ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama bëgg-bëgg foo ma seen ma jëm ci moom laa jëm foo ma seen ma jóge foofa laa jëm kooku de lu mu bëgg-bëgg naa ko lu mu bañ bañ naa ko loolu lu mu ma ko fayee lam ma ko koyee dama koy waat moom itam lu ma bëgg bëgg na ko lu mu bañ bañ na ko ngir lan du ma bëgg lu mu bëggul ci àddina loo dégg ni rasulullah yi bëgg ko waatal ci alquran yi Sëriñ Tuuba ko woon loolu mooy wane ni kon sunu taxawaay bii réy na ndax danoo fekk lu Sëriñ Tuuba réyal nu réyal ko te du woyof mukk lii mooy li nga xam ni moo taxat muy jaar ci naaj bi di jëkkante bu ñu nee allahu akbar sa njaareem la muy sore sore ak foofa mu dugg ci wuy yàlla foofa de lii mooy ponk bi nga xam ne nii bu ko masaa dégg dootul wax lii mooy ponk bi nga xam ni bu ko masaa dégg allahu akbar bu feebaree wér na sëriñ Basiiru moo ko wax kooki nag keroog ba ko sëriñ mu lay sëriñ Mbàkke bu joxee doomam ja muy xale bu ndaw di sëriñ mu lay bu mu ñëw fanaan ci kër yi yenn ci kër yi bët set mu melal ki mu gis daf yaqumu layaali raaji an baada sawmihi yusalli imaman lil mala fi lmasajidi laqad azama arrahmanu quddaamuhu maan min annaari ikraman li faqri amajidi xelal bu ndaw boobu loolu la wasalaamaaleykum wa rahmatulah tubarkalla jërëjëf sëñ Cheikh Awa Balla Gueye monsieur Faye ñëw na quand même. d'accord dinaa ko woo léegi. maa ngi bëgg a dee ak tàngaay fii nii. waaw. monsieur Ba na nga def. metti na. xam naa da loolu moo tax nag ma indi la verre bi nga xamante ni moo gën ci verre yi. verre bi nga xamante ni. soo ko defee sa bâtiment du mos sa tànk. te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii. bii nag moo la sonal. verre bii moom moo sama bâtiment bi yëpp. tollu de lëndëm dafay tàng. te mhm. am nañ climatisation mais ça va pas ba tey doxul. mais loolu léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. nañ dem. établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15.